waa kay jërëjëf ñu ngi taxaw ak euh, daayra ansaaru diin euh, muy kuréel bu am solo boo xamante ni euh, ki nga xamante ni moo fi nekkoon jëwriñ ci keppaaru Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba di Cheikh Mamadou Mourtada moo leen ko tudde woon ñu nekk ay ndawam nekk ay taalibeem nekk léppam nekk ci foofu nga xam ne moo di ndaam nekk ci école ba di saytu li nga xam di xam-xam ñoom tey nag ñu ñëw fii ci jumaay tubaa fekk si invitation boo xam ne daal di Moukhaddamatoul Khidma moo leen ko invité woon ñu ñëw fekk si waxtaan yi ginnaaw waxtaan yi euh, toog nañu xewlu ginaa loolu nag am na kaddu goo xamante ni mu ngi war a jógee ci mudir Ahmed fay bu defee mu wax ci turu daayira Ansaarud-Din sëñ Ahmed euh, bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi a barakaatuhu. aouzu billahi min ashaitan rajim bisimilah rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa Euh, mbokk yi ñuy déglu te di ñu seetaan fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen dokkeel ci cheikh ramadan mubarak euh, di ñaanal sunu sëriñ cheikh mahamadul muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba mbooleem sumbam ak i naalam ci diine mu mottali ko euh, te ñu ànd ko ak moom waaye di ko ñaanal itam ki nga xam ne mooy suñ Mamour Mbacke ibnu cheikh mahamadul murtada moom mi nga xam ne la suñu borom teg ci bopp njabootu cheikh murtada suñu borom yàggal ko fi ba ay naalam ak sumam lépp mu motal ko Euh, di leen nuyu yéen waa daayira Muxaddamatul Xidma bu baax a baax di rafetlu seen taxawaay euh, rawatina nag euh, li nga xam ne moom ngeen di amal ci weeru koor wi mel ni ay jataay waxtaan yoo xam ne yu ama ama am solo la wax dëgg fa yàlla ku fi teew rek bernde nañ la ci sa wàllu ruux waaye bernde nañ ci sa wàllu madda kon dafay mel ni bernde ñaar la mat yéen a maana wi jan yëpp nag mat na matale na li tax rek ku nekk xam ne ne weeru koor moom lu ci nit def rek tuyaaba la mm. kon nag su su ngeen jógee di ci dogal nit ñi te yonent bi waxoon ne képp ku dogal ku woor am nga tuyaaba ju toll josam te du wàññi ci tuyaabam dara mm-hmm. ah, ngeen def ko lu tolloog fanweeri fan ci weeru koor wi mm-hmm. loolu seenu pay yàlla rek moo xam ne muy toll mm-hmm. boo gisee itam daayira Ansaar Din sol ay dàllam ñëw wuy si woote bi dafay mel ni yëngum ak seen yëngu yëpp benn la ndax ku ci nekk rek ah, ah, taal bu Sëriñ Tuubaa taaloon ca ñuy nekk di ko xambaat di ko taxawu ba saa su nekk nit ñi mën di gën di jariñu di gën a xam sëriñ bi di gën a mën mën di gën di jariñu ci moom te kon ne gis na ne bi la waxtaan yi tàmbaleeg léegi bari na ci doomu aadama yoo xam ne ci lañ gindekoo ci lañ xame seen diine ci lañ amee taxawaay yu rafet ci seen diine ak pas-pas bu dëgër kon loolu nag ñu koy taxawee amee nañ leen sant amal nañ leen gërëm amal nañ leen njukkal ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di teg nuyoo bi ak cant yi ci loxol al imam suñu xaafe di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo koy gunge ci liggéey bi Euh, di xam ne daal Moukhaddamatoul ma wax dëgg fa yàlla lu mëntoon a ñàkk la waajtaayu sëriñ bi mu waajal yoo xam ne faw yi euh, am ñu fi nekk di ko taxawee te yéen la ko yàlla teg seen loxo kon yal na leen ci yàlla gunge ma leen ci ndam euh, lépp lu ngeen ci ngeen am ko ñëw na wuy si nañ daan woote bi ànd ceeg mbégte lool wax dëgg fa yàlla bég nañ waxtaan wi surtout nag waxtaan bi ñu fekkee nga xam ne mi ngi ñuy jàngal nga xam ne mooy dund ci suufuk awlama nan lay dundeek ñoom muy lu am solo loo xam ne lu jar a jàngal lu jar a bàyyi xel la kon jëlee nañ ci bind yoo xam ne incha allahu taala mën nañ koo jëriñoon ñëpp di leen sant di leen gërëm di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex daa koy jërëjëf amin ci ñaan yi am na solo lool ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax kaddu yi rafet na euh, kaddu yi taalibe la kaddu yi murit la li taxul ñu woo leen fii mel na ni euh, juumuñu te itam mel na ni jàpp ngeen ko xam ngeen ko bu baax a baax euh, te mel na ni sax cofu leen woote bi ndax délégation bu riis ñoo xamee kilifa lañ ay borom xam moom ngeen àndal kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu fekkeloo ñu ko déwén yu bëree bëri ngir ñëw yàgg leen feewoo ngeen yàgg ñoo fooy wuyu si te lépp mu dëppoog ngërëmu Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah